effectivement kon ñu tënk rek tuuti wàllum Sénat gis nga ni mu demee euh, président Macky Sall def na décret décret boo xam ne décret bu illégal la Euh, tas euh, bureau bi gannaaw ni mu ko tasee sax mën na am ñu mu fa jële am ñu mu fa bàyyi comme ni ko réglement bi santaane mais mu violé loolu pour am euh, tey Sénat tey du Ndir demaat fi nga xam ne moo nekk Sénat pour mën a récupérer ay fiches ñu koy du non dem Sénat pour récupérer ay fiches ñu xamal ne ko ne du Ndour na ko mën a koo joxati parce que nekkatul président Sénat ndax ndëgg sax yooyu président Macky Sall di leen lalal pare ngeen pour tëb ko. xam nga Macky il faut que mu comprendre ne. réewu Sénégal euh, réew la boo xam ne jël nañu seeni décision ba pare et je pense que moom Macky Sall war naa xam loolu guddi yi ñu toll euh, les Sénégalais save déjà ce que Macky Sall a fait et ce qu'il prépare Sénégalais xam nañu loolu ba pare Macky Sall dara am umpatul kenn Macky Sall ci juge yi la tàmbalee. Mais est-ce que tu sais que tous les jugements de Sonko il a choisi les même juges et les mêmes procureurs lépp loo xam ne topp na Ousmane Sonko même groupe nit bi ñoo koy àtte donc loolu bu ko defee ci Sénat ñun bettuñu mais ñun comme niñ koy ñaanee comme ni ma la ko waxee léegi je pense que vraiment dina Macky Sall waroon naa mën a gën a góor góorlu ba ñii nga xam ne tey ñoom ñooy euh, suñu institution yi vraiment mu continuer leen dooleel ñun. dañuy topp rek ñoom li ñuy wax ñoom ñoom nee naa la le mot le mot le plus spécial et le plus sacré du Sénégal ñoom ñoo koy utiliser ñoom ñoo lay ne lan force reste à la loi mais ñoom ci seen bopp nee nañu lu loi bi décidé te doon dañ ko approuvé <laughs> donc ñun xam nañ ne ce n'est plus la force qui reste à la loi mais c'est la force qui reste à Macky Sall. ñu ngi gis benn tweet sànq ba euh, non benn tweet. Mhm. bu benn euh, kii euh, bu ki nga xam ne mooy Amadou Ba def. Mhm. ne biir Assemblée nationale Aïssata Tall Sall nee na CEDEAO bu appliqué bu def bu joxee verdict pour ñu dellowaat Ousmane Sonko ay droit am comme réclamant li ñu dugal wax ne ñu dellowaat Pastef seen ay droit ba mën a continuer waat nee duñ ko appliqué ndax loolu en tant que activiste. Euh, ministre euh, di ko wax euh, wala ministre affaire étrangères non ministre de la justice taxaw di ko wax est-ce que loolu aussi lu ngeenu lu ngeenu rafetlu la wel même loolu du guléet loolu ñun xaaruñu ko woon ci ñoom mais ñun dinañu def quand li nga xam ne moom la ñu yoon may yëpp incha allahu rabbi bu ñu defee li ñu yoon may yëpp nag ñoom bu ñu bañee yoon bu boobaa ñu def leneen li nga xam ne moom moo ci tegu mooy ñun résistance la ñu mës a woote ñun li ñuy woo sénégalais yi toujours mooy ñu continuer résister illégalité yi nga xam ne loolu la Macky Sall di indi ci dëkk bi jaay doole bi Macky Sall di indi ci dëkk bi mhm. tàppale bi Macky Sall di indi ci dëkk bi ñun loolu la ñu ne nañ ko résister parce que réew mii ñun suñuy maam suñuy mamaat ñëw ñu pour defar réew mii pour bàyyi benn doomu aadama rek ñëw di ñu yàqal réew mi loolu nun duñ ko nangu donc je pense que ñoom pour ñu appliquer ñoom ñoo fa nekk ak CEDEAO ñoom ñoo ci bokk donc ñoom bu ñu nee du ñu appliquer li nga xam ne moom la a def donc loolu gëm naa ne que ñoom seen gàcce la waaye ñun du gàcce ci ñun. d'accord Ousmane Tounkara ñu ngi lay gërëm. merci merci beaucoup. Ah, merci merci